Je voudrais féliciter l'équipe bon féliciter aussi les participants aussi mais de féliciter toute la communauté de Boun. c'est Boune qui gagne quoi bon c'est juste pour le départ pour nous nous les ñoom pour euh, démarrer une activités parce que euh, est dans les vacances c'est des activités de vacances bon actuellement nous faisons des yéene taxaw Nous tamit ñun tamit nos ñu mëna a siggi ñoom tamit gis sen bop comme yenen gox yépp dal lool mom moy ki bitu journée bi aussi tamit c'était juste encore pour euh, réconcilier équipe yépp jappal leen ñu and doon ben té xamna ñom ñepp ñëpp buun lañ dëkk té xamna luñ fi mëna am tamit ñom ñepp buun lay délu ci té xamna tamit euh, buun mom moy sen fierté donc euh, ñu wara mëna and nek ben té xamna te xam buun mooy gagné dal waaw message bi ñuy lancer mouvement nawetani mom moy ñu xamné li activité de vacances ree la pour ñëpp tamit nañ ko jàppee noonu amul violence warul mën a xajul sax si suñu diggante ndax déjà bu nekkoon ñu nag keneen ñooy joué wala ñu ne beneen dëkk ñooy joué sax dafa war a nekk dans le fair play rawatina nag mu lekk benn gox boo xamante ne tey boole yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla mais bu fi kenn gaañoon tamit boo moytu di nga gis ay mbokk yu jóg dem jaale ji ñooñu. donc pour vous ko que dara xaju fi du jàmm donc nañu demare activité bi ci fair play terminer ko ci fair play et que le meilleur gagne loolu rek lañ leen di souhaiter ñoom ñëpp mais di ñaanal aussi tamit euh, club yi nga kii nu ta euh, nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nii di préparer nawetaan di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ñu préparer ko ak jàmm yeggale ko aussi tamit ci jàmm quoi. waa récompense yooyu noonu xam nga comme fédération bi aussi tamit dafa am commission yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. commission yi dañuy toog di waxtaan donc loolu yamuñu tey par exemple si sport bi kese ñoo ngi si vole yëpp te fépp la ñuy yëngu ndax bëgg nañ tamit aussi tamit ñu développer suñu secteur donc bu ñu demee si comité sport bi xam nga ku mel ne Ali Anne bon nga xam ne tamit moom tam moo ngi si vole sport bi Euh, joxe idée bi ne dafa bëggoon ñu organiser benn événement sportif boo xamante ne aussi tamit dina attirer sportif yëpp ñëw tamit ah franchement loolu euh, dañ koy saluer di ko encourager aussi di ko féliciter waa mais tamit aussi di euh, di féliciter tamit sunu parrain sunu kii nga xam ne moom moo ñuy jàppale ci lépp lu ñu dugg muy le caisse de dépôt xawma le directeur de caisses de dépôt et de consignation muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba bon ñu koy féliciter ndax jeu de maillots yi ñuy def joxe ñuy soumettre ko problème bi ne ko jappalé ñu wax dëgg yalla yëkkati na ci dolem ak ci posam accompagner ñu jox ñay ballon aussi ku xol bal yi di nga xamné ne bal yi benn bu nek 20000 francs lay jar te kenn ku nek 5 ballon la la may man ma andi 2 2 2 ni mais kenn ku nek 5 ballon lolu c'est fierté après lolu nak dañ koy ñaanal yalla ñaanal yalla ko tamit mission bi nga xamné mom la ko dé yalla dénk ni tamit ci état du Sénégal dañ koy ñaanal yalla yalla may ko mu yéggalé ko ak sagom té état du Sénégal aussi tamit amel nañ ko ñukkal ndax yamul fu mu dëkk rek mais mo ngi wër Sénégal mo ngi def ay gestes mo ngi def ay actions loolu dañ koy encourager aussi di ko saluer. message bi ñuy lancer moom mooy l'avenir du Sénégal c'est les enfants donc bu ñu leen jàppale rek jàpp daanaka mën naa ne suqal nañ dëkk ndax xam nga sëñ Cheikh Tidiane si da ko doon wax nee na dëkk boo ko bëggee defar si njiit ngay commencé exactement waaye boo bëggee préparer dëkk ëllëg si xale yi ngay commencé donc xale yi tam ñoom ñooy avenir dëkk bi. ñun suñu wall rek lañuy def tôt ou tard d'ici 10 ans 15 ans 20 ans suñu doole day jeex tay xalé ñom ñoo am avenir bobu bu ñen leen préparé wu ñoom tamit ci ouverture bobu nonu encadrer len ci milieu bobu nonu ci développement je pense que bu ñu ko ko defulee ñun dañuy euh passer à côté donc lool mom mo waral nak euh, initiative bi ñu fexé di ci encadrer xalé yi gunge leen aussi tamit par le peu de nos moins mais di ñaan yalla ñom tam ñu mag ñoom tamit mën ko defaraat seen ay rak tamit